ki ni di mbarante amul solo boo bëlee gis naa yaa ngi may fasal kanam ay mag ak rakk nag dañuy jote te erreur mënul ñàkk ndax man xam nga ni bañu ma la ndax defandre naa la foo nekk ak foo nekkul seytaane nag waxul dëgg waaye yàq na xel te xam nga rek doom ni mu mel ci yaay ñu jékki-jékki wax ma benn affaire boo xam ne dafa tombe tombe waral ay gaaf bi ci des nag mooy Chacha suñu nit nga suñu mat nga yow xanaa tey newoo ma ceebu ginaar ngay toggante. ah tey kii de moom ay gan kaaw nee moom ay ganam ñoo koy toggal ci kaw. waa ganam yi seen làmmiñ yi di mel ne bool bu bees. ah boo nekkee ci néeg bi doo nelaw boo nekkee ñii lu tax civilisé wuñu. nee na ceeb bi may togg daa saf kaante moom ceebu pël la bëgg donc mu woo ay mbokkam ñooy togg ci kaw. moo tax ñu jël leer na ma ne kooku mbokkam lañ kii kay tuur de famille tour de famille la am man de wàccu ma. këram la këram la. Ah, ba lu ko neex def. ba pare Chacha nañu waxtaan. dama kaaw ci lu mu nekkee. Chacha américain mii di fi ñëw di la seet xam nga ko. kan sama américain waaw. Euh, fan la dëkk. mbokk kaaw yi la demal ubbi leen man ubbiwuma de. say mbokk man ci kaw dañ leen. waaw demal ubbi leen konte yow yaay kër gi daal yow lañ def nooy neex. dama ne xam nga américain xam ay mbokkam américain xam naa ko bu baax bu gis ci ko ko ku gën njëkk a ñëw rek nga dugg ci parce que da ngaa manqué espoir sa américain mii di ñëw ci kër gi dox xamal li ma ko xamal li ma ko xamal bari na moo tax ma du bëgg a dugg ci moom fu mu dëkk ci dëkk bi xanaa fan ci dëkk bi ah ci dëkk bi la Thiès kaay gii la dëkk mus na laa présenté ne la kii sama membre de famille la kii sama mbokk la sama mag la sama sama nijaay la sama bàjjan la est ce que ay mbokkam deewuñu présenté wu ma kenn l'essentiel que daal kilifa la man kilifa laa te yor na lu ma yoree yaa ngi dégg yàlla teral na ko lépp lu ma doon wuti daal am naa ko. waaye <laughs> <laughs> waa kii américain mama Africa it's been a while gisul yow. ndeysaan. yes maa ngi nii. <laughs> nama naa la. oh ci noo nekk. Um, doxantu. doxantu xool paysage xool Sénégal. doxantu te bañ a doxaan nag. dox non non only chacha. waaw ah, doxantu <laughs> bañ a doxaan. yes yes suuf doxaan. non oh, non non non. waaw kay <laughs> ci loo ne nag. I'm good. namm naa la. very good very good. waa américain yow noonu sant. Uh, Jackson. Jackson Jackson. You, you know, Michael Jackson in USA and I, we live in the same family. ndeysaan. Uh, yaay Michael. Mm-hmm. ak sama paay ñu benn family. kon yéen ay cousin ngeen. that's good that's good. that's good tey yes. Oh, mën naa la de. <laughs> but you are very beautiful. yow daal ku la gëj gis rek gëj a yes I'm here yeah yeah. waaye sa jongo ma lan la nag mooy américain. jo jo it min jongo mo. ah jo jo. min jongo ma kay. ok ah jongo mo. sa jongo ma daal ëpp na la doole. ok <laughs> naka Chacha nag. very good Chacha. dama ko bëgg sama xol. and last time I was talking to Lai about our wedding so dama koy takk. takk mel ni. Chicha. Ah. waaye yow ya dama koy takk. bu ma takkee dina ma may ay million dina ma génnee ci kër dugal ma ci kër gu baax wala mu yóbbu ma ca wetam États-Unis loolu laa doon ñaan yàlla defal na ma ko leneen nag lijjantiwu ko ci moom. kon yow daal sa bopp marchandise nga ko jàppee jàppee waa ji GP am nga njëg waa ji moom na lay jël di la yóbbu di la indi di la yóbbu di la indi ko gisee sëy yow nga ko gisee. non man dama lay laaj. waaw kon ba tey marchandise la. kon la kaa bi demee noonu laa ko gisee ndax jamono ji jëkkër dafa jafe soo mënee daal sama xew bi may préparé nga jàppale ma ci xam nga nag lu ma bëggoon Djiby Dramé laa bëggoon sama xew bi mu woyal ma ko ak ah, maman yaa ngi woo maman ti la sax maman joli ko maman Jeanne aw buuru këram jooju nga xamante ni bu yuuxoo rek nga laa bëgg mu woyal ma sama xew loolu dama ci sawar xam nga fan laa jaar hmm. seexu yàlla yi Ousseynou ak Assane Jara Yang ngi ak numéro ba lan bu baax. man day woñu wala jibi dram def ndaanaan. ha ah, ni di mbasin nga bëgg a def. muy yee. <laughs> Eh, xoolal samay mbir bal di ko wax ndax nit ñi dañoo gaaw té xam nga xalé yi dañoo genn fé hmm. xam nga man grande dame la hmm. fokk ma genn lu daame. motax ma bëgg rek wo jibi dramé suma ma def sama mbubb bu tour hmm. def samay tagal. Tak ba fess mu nekk fé sajj aw buru kërëm nekk fé sajj boo demee nga ne Ousseynou moo ciy mag. ay seex ngay nax moo ci ah waaw waaw Ousseynou ak Assane. waaw waaw yow dëgg leen di tudd dafa bari. Ah. léegi kenn ki laa bàyyee la sama bopp kenn ki moom laa nijaayee la sama bopp. ñooñu yaa leen mag fuuf sax. ah matière de ay mag ay nijaay yooyu. Mm. laa buñ doon jigéen jàpp bàjjan laa leen di def. yow daal da ngaa bëgg indi la Djiby Dramé ma jaay la ko ci Ousseynou ak Assane Diarra jeex na. waaw ah, moom laa bëgg. ñu ambiance waaw mooy nga xam ne lu ñu def moo gën lu ñu deful. Ah. yow Djiby Dramé mooy waxuma jaañ naa ama américain bee mu dugg ci Amérique. dëgg daal di koy bàkkee ci Amérique. li muy jaar bu bàkk say maam ndax say maam tëjuñu fenn. takk eh, ma ma yóbbu ko in USA. nga ne la ñoom in USA eh, in wax lu ma neex yow de. Uh, people wax lu ñaaw ci Chacha. people mooy fan. people nit biir. nit bi dañuy wax chacha lu ñaaw. mbaa du ca kër ga. non non every everywhere dañuy wax Batman bëgg na ko ba pare dëkk bi yaas dëkk bëy. yow nee nga ci dëkk bi ba ko ne nga déglu ko. yaas damay déglu xool. mi kañ ngay dellu Amérique nag. bat yow wax na lu rafet ci chacha. eh chacha baax na. gën na riche na. yaru na toog na réglé na. oh te bëgg na la. Oh. say wax rek lay wax. loo wax mu ne américain. Oh. ah da koy bëgg a yóbbu أخلاقه ده مكيوب in USA ما أي نخ no نخ Shasha is my life Shasha is everything for me I will marry her and uh, take him, take her in USA. In USA. Ah، university de? Yeah, that's good. good, take university na yo yep khalis. Ah. Dinala tara. Wado pa legi ni. Oh, I will give it to Shasha. Yeah, yeah. Ah, <laughs> Mama Africa. I will give na de. But you. Wa de me America. Yes. Ha? Ah, mm? manday binta. Ndeye Binta Ndeye waaw Ndeye Binta sama xarit ba Ndeye fu mu dëkk ci USA man de xaw ma fu mu dëkk ca foofa. ok waaye restaurant Dior daal moom xam naa ko ci jàpp naa ko ci. ok waaw moo ko fa géré ca États-Unis ok ma ko. dina ko nooyu xarit bi nam oh. ah yow it maa ngay daanu sax man. <laughs> What waaw Ablaye. yow mënoo bàyyi lu xew ci kër gi rek nga ma koy nëbb. maa ngi fii du sa kër. man kay xam naa ne du sa kër. waaw lu ma la ci wax du sama kër du sa kër. waaw dina nangu naa. waaw kon lu may nettali. ci fi jàmbur dama laa nettali loo. kon lan laa lay nëbb. yow lan la yow xanaa da ngaa yàkkamti ma wax nga dugg ma new saan. parce que boo ñëwee ne lu xew dama la koy nëbb mel ni man sa kat la. dara def fee xewul. déedéet bu fi xewoon sax du ma la ko wax loolu dama am lu ma la wax nga am sa kër li jënd sa kër. man de sa xol bi li koy gat di ko kolobaantil leen tegu ma la ko. baax na yow la rek du keneen. waaw li ko yàgg a misère de. waaye Socha dañ koy takk kon. Socha waaw. yow ku la wax loolu foo ko déggee. damaa tase waayam ji suuf mu wax ma ko. ban waay luy ban waaye xanaa américain la xaw ma américain xaw ma nu ko cay waxee américain. léegi bi mu la ko waxee loo fa wax mbaa yàqu fa dana wax fa wax. di yow nag yàq nga wax yow réew nga. ah déet. man lu may dox di yàq dag maa xamee wax lu bon wala wax lu ñaaw <laughs> man gémmiñ ñu gar mi laa yor ak noppi gar mi de. Ah, lu baax laay déglu lu baax laay wax. Ah, sama gémmiñ ah, dañ la peinture. ku ma peinture yow la bu ma peinture la lasoon nañ la. non dama ni ndax waxoo fa lu ñaaw. yow laa ne la fu ma peinturee lasoon nañ la fa. lan nga wax américain bi waaw kay looloo jara laaj ba pare. man lu may iñaanee Chacha yéene naa ko ko di. ndax taaru jigéen sëy loolu dong laa fa def waxuma fa leneen leneen lu ma fa war a wax. Ah, yaa fa wax loolu. waa léegi yow moo ko lolo loolu lu may wax waa kii moom mbaa jàmm la. Ah, li ngay am tuyaaba de bëriwul kon de yàlla defal na la ci tuyaaba ndax yàq nit rek nga mën. kon de danaa la ci sédd ndax yow ba nga juddoo ci sa nday ak sa baay ba tey bàkkaar nga judduwaale. Ah, waaw jërëjëf. da ngay ñaaw làmmiñ gone moom bu reewee fek fi mbag yara di ko rek lu lu lu lu dikk rek def retour lolu grawul mis naa ko ci say wax ah, lolu c'est pas méchant de man ak yow ci lolu mis naa ko mais comme mm-hmm. yalla def na sutura ba nga dajé ki bëgg tak chacha nga wax fa lu rafet lolu victoire la mm-hmm. te dañ ci sante yalla eh. té sax nak sa wax ji yow li nga wax la man gëmumuko man dama xol lo gëm ak lo gëm man lijjanti wu ma lo gëm xam bu ma gëm. xamna lolu man dama la laaj rek. waaw mais comme li nga fa wax na bàjjen na rafet rek nga continuer. comme day mbil gi daal expliquer na ma. waaw man man dama doon xool lu wër rek comme amna rek alhamdulilah rabbil alamin. nga ñaanal koy it. ko mu yag ci sey bi. te yalla sutural len na fat nga ma de yow. dama lay ñaan loolu rek. yow dimbali ma boy ñaan ñaanal ñaar ñi nga xamni ñoy ñaari way dencante yi way man mu ci dugg sama yo neeku ci. yéene daal laa ci am taaru jigéen sëy yéene naa ko mu sëy comme ñëpp. bu dee loolu de sant ci yàlla ndaxte comme xam nga ni Chacha sa nawle la te ñu koy takk. nga daje ki koy takk waaw koy takk te yàqoo ko fa nga wax lu baax. du sama te yàlla tax waaye du sama nawle. ndax man xaw ma leen ca aada ba. kii lu ko dal mais bàjjen bàjjen ëmbam bi ba tey mi mi ngi xanaa du beneen ëmb kañ man ëmbam bi déggaatuma mu wax ci dara boobu ba tey te moom day mel ni ku ëmbul waaw mais lu muy wàccu non ay saan la ay saan la parce que man bàjjen ëmbam bii déggaatuma mu wax ci dara. booy sa sa sa wàccu yi <laughs> yow du lu tax service <coughs> ba jan nax xoolal xam nga la ba jan bul ma tooñ nax bul ma tooñ nax. nga yamale sa baaraam dama lay wax su fekkee ne dangay jafte la xaw ma dangay. yow may ma sama jàmm laa la wax dimbali ma nga may wax waxi jafte. yóbbu ko si biti. fu ma neex laa koy def. Ah. waaw. fu man neex laa koy wàccoo. lu tax service woo leen. yow xam laa la wax sa yoon nekku ci. lu tax service woo leen loo waral ni ngay nekkati ko dem. bu doon yow la di nga ko mën a téye. lu lu tax du ma ko téye. waaw man téyewuma ko nag. téyewuma ah, ko moo tax nag. maa tay bajjan maa tay bajjan. respecté leen sama nuwaanu yow dama ne nga téye say baaraam laa la leen sama nuwaanu laajuma la laajuma la. yéen lu tax yéen yéen lu tax ngeen mun sabotage. non yow ndegam yow mi jóge ca àll ba yaa salte waxuma laa mu naan lu tax ngeen sabotage. xam xam nga laajuma la. yow xam nga ne ma ngay nekk faalewuma la Ablaye a ngi noonu ca kaw di wax. ana Ablaye sa sa faalewuma la. xam nga lan laa lay xamal ma mi ngi noonu ci kaw léegi Ablaye laay wax. woo ma koy wax boo pare xam nga yow damay wax toujours su ma nga may affaire ba jan mun naa la def lu métti fii sama kër la. da ngay fen laa la wax fii doo ma def dara yow ya def ma dara man maay ah ci kasso bi ngay yow ah waaw ko jugal kasso nga da nga umbu mané nga def ma dara da nga umbu di baye ya, bo da nga umbu cim cim waye ya, bo ma defé dara yow doto ko dole do sax ngay umbu umbal wa demati nga bo ñu umbal ma tay ma tay nga wacc ko ci biti do fi la koy waccio do ko waccio fi fi la koy waccio ba mo wara ñewaan nga xol waccio nga sa patiente ba mo wara ñewaan na ñew waaw na ñew nga xol ba xam yow la waccul fi nga xol yow ya oh, mom awa yaa war a fobeel cim waccoy soxor yi kay nii lu tax nga bon yow doo rus sax doo dem na dem seen kër nga fii sama kër la lak fii sama kër yow dimbali ma xoolal sa lii laay jël fa beere ko fii bis boo ko defee ba jën di nga xam ne man xam nga dangaa ëmb xam nga dangaa ëmb yow ku la laal ngay wut pour nga am am certificat médical man mënuloo ma dara yow du ngeen rus toujours ngeen gàcceel abal toujours ngeen rusloo abal yow kuy sa référence yow toujours ngeen rusloo abal dama ne kuy sa référence yow man référence mooy sama référence waaw référence sama bu woon référence man maa dama ne la nga dem ci Sidi Ndaw jëli fay ah waaw waaw Sidi Ndaw moom baax la waaye yow it war ngaa dem ci sooda mu jox la ay cours. waaw doonu dofa tax nga naan référence mooy sama référence. ci seetil bàyyi ay Sa ak Bamba. ah ah yow itam seetil sooda mu jàngal la civilisation. demal ñooñu nag ay référence lañu. Ah, bokkuñu ak yow. ngay wàccu si àlla yi nii. ci looloo tax nga ñàkk a jom. moo tax nga ñàkk a jom. cappal fee. loo ma wax ma wax la loo ma wax ma wax la ko may ma ngay mbaaraam bay tim boo ma waxee maaraam ma nokkal sama xol léegi waaye yow noppal fege waay tim ngay def sa lex nga di mel ni ku góob fonde nekk sama kër léegi mënu ma am loisir sama kër abalaay ay abalaay boo paree nga ñëw lu réglé ko ndax soo ma waxee ñu ne damaa léegi damaa wan de damaa am sama kër te ku ñëw bëgguma wax lu mu ma warul wax. du ko d'accord fenn yow boo meloon ni sooda sooda bu melee yow yal na day xaru moo la gën a silwisi ci ñàkk moo ma sax sax lan laay def sax waaw waaw abala yee ñëwal rek lekkee bi ñëwal boo ñëwee ñu rek lekkee bi waaye Eh, taxi boo tourné rek waaw tournel waaw tournel ngay ñëw fii waaw nga aji sawane wax naa ko na jënd si terrain yi bu ma ko waxee boobu ba léegi muy wax ajjana laay xaar ajjana laay xaar bàyyi ko rek aji du ma ko wax dara mooy na waaye ummi moo ko ëpp ful borom Amérique <laughs> borom Amérique moo ko ëpp ful kooku jënd na moom moom jënd na si terrain yi borom Amérique <laughs> aka baax <laughs> <laughs> yeah, yeah. And the land is dark, and the moon, and the moon. Hey, Michael, hey! Like we see. Hey, cai, fi, cai, cai, cai. Michael, yeah, ulala. Man, what's the problem? Eh, what's the problem? The problem, what's the What's the problem? The problem, what's the? I'm going to Michael. fii ay xale nekkuñu fii la fa deux jours nekkul fii ba nga ñëw fii bugguñu nekk di ñu di comme poupée 31 euh, décembre du ñu nangu loolu nekkal nit ngay dem da yow amagoo jabar ngay fecca Michael Jackson ah, ngay walis di ñëw amagoo jabar kër bi na yow yow yow yow xam waaw yow def euh, man euh, morom waaw morom waaw man duma non waaw kër gi sama jabar moo fi nekk. nekkagul sa jabar every time every night every moment every morning ma neex ma ñëw. every day day juum nga nag. Okay. No, Jumga, no, okay. And Jumga. right now you're disturbing me because I want to see Shasha, <laughs> my wife, my herd, my dog. Hey, xamal li ngay wax ak man bis boo ma dépassé nga wax ma leneen da ngay xam bul defe ne man koolaa de nit ñi ñu ngi may jàngale Amadou Rahman mi ngi may jàngale Amérique mi ngi may jàngale loo wax xam naa ko dama ni jabar ngay wut n'est-ce pas wa yes ah du sasa mom nga bugu jabar ah ah nak, nak fi so am laisser passer nga foy dem ngay nice, wow. da ngay dem si jakka bi ala jakka bi xam nga ala foofu ñuy def ala ala xam nga okay. jakka bo demé foofu ñu waxtaan ñu wut bo ñu takka sey bi bu ñu takkee sey bi ya. bu la neexee nga def kalaso Okay. si biir kër oh, oh, oh. nekkul kër listen to me. listen, to me last time I was talking to live. and the wedding will take place this coming Saturday. Inshallah, I will take Shasha. She, will come with me. Mm-hmm, but right now you have to stop. Every time you shout, shout American citizen. When you keep on doing this kind of things, I will jail you. Police, take police here. so you stop wax bu bari bu good. hey hey kër bi kër bi. yeah mezzo. yeah yeah house. yeah yeah house. house no house Ablaye. say you house me. you house me. you house lan. ok yow. waaw from now. waaw sama xarit. waaw lépp lu ñëw. waaw mu ko sa loxo nga jaar. déedéet bi. dama koy takk. waaw moo gën ngay dem ñëw vaillé vie eh, fii nekkul bisiro. ok fii nekkul bisiro. ok nekkul euh, laisser aller aller partir. nekkul foo xam da ngay dugg génne defu yooyu kër bi dafa am luwa wa. yow waaw yow bëri wax. waaw wax sa. waaw you so talkative. waaw eh, xool bu wala man soxlawu ma sa bii de. dama lay wax fii du bisiroo de foog teew allez sorti allez sorti affaire caga yaagal yooyu dafa am fii affaire caga yaagal yooyu dafa am fii da nga koy teg si yoon rek teg ko si yoon rek sama kër fii nii teg ko si yoon rek abalaay mooy masala ak yéen man du ma masala dama lay wax right now is no right now right now tis da ngaa defe ne xaw ma Amérique Abdourahmane mu ngi may jàngale Amérique ñoom ñëpp yi xam naa léegi how are you fine fuck ay naka fi voilà c'est ça ah ok fay xew lu fay xew appartement de lu fay xew fay ñoo gën a mus ñëpp ndey njaay fucking ne yaa ah, ah, ah, gën a mus Kenya, fucking name. Yo, ah, ah. Kun ko sikul dimbala fa ñoom ñaar. Fucking ni dimbalante du ci dellu ginnaaw. Ay topp ko bëgg ko loo te gisul lu mu dee. Ndey njaay tas